nga wax dara mu def coow. man a ah, yàlla dimbali na ma man bës dafa ma fekk ci li may liggéey xam nga bës léegi la xew cest à dama la bëgg a wax man sénégalais xam nañu ma réew mi kuy kilifa xam nga ma man ba may génn télé Ousmane sonk kenn xamagu ko Bassirou Diomaye Faye kenn xamagu ko donk kon def nañ ma à une bu ma compté li ma génn yëpp télé rajo nangam nangam. loolu ñi mu ko ëpp Sénégal bëreetul kon dootuma wax dara ba am lu mu ciy jublu ndax ñun li ñuy def lu ñu yàlla natoo la rek ñu di ko def ñu xam ne nag am na ay risques qui peuvent être fatal moo waroon ñu daw dem Mali. Hmm. maanaam it li ñuy wax saa bu ñu koy wax dinañ ko peese dinañ xam gravité bi ba lu ñu ci mën a fekkit man benn yoon laay exilé Mali du ñaar du ñett ñun lu ñu fekk ci li ñuy liggéey ñun dañu koy assumer maanaam ay activistes lañ askan bi lañu fi nekkal ñu porter seen voix. kenn fayuñu amuñu salaire amuñu bureau amuñu dara donc li ñuy def moom moo ànd ak dem kaso moom moo ànd ak ñu di la ŋàññ moom moo ànd ak ñu di la xoxatal moom moo ànd sax des fois ñu lay xoxatal pour jël sa bakkan hmm. boo gisee ma préciser lool parce que saaboo boo yëkkee yenn kàddu yi sax wax ko yenn nit yi nga xam ne day am souvent ay interprétation yu ñu am mel ni dañ naan nit ki dafay wax dara fekk lii la si bëgg wala lii la si jublu hmm. looloo taxoon c'est important ma leeral lool noonu. ñun dañuy am ay xibaar man nit moomu woo nit moo woo koo xam ne su ma wóllëre la woo ma ci benn hôtel Ndakaaru mu ne ma ah yow de gis naa ne yaa ngi dem ci média yi Sénégal respecté nañ la jox nañ la bopp mu ne ma foog nga alerte ma nekk ko alerte ci lan mu ne ma man de mënuma gis président Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko mu ne ma maanaam boo jàppee le 27 ba le 28 mars avant avril. Hmm. mu ne ma dañu indi ngandam féticheur boo xam ne Inde la ko jëlee rendi fa ay bëy yu ñuul ak nag te bi ma toogee fii waxoon ne nguuru Macky Sall rayoon nañu ay nag tëngeej coow li de bëri woon na mais loolu samay kàddu yooyu ñu bëri dëggal nañ ko procureur Aline Badra Ndaw hmm. du n'importe qui du Ibrahima Sall moom moo toog mu ne bi ñuy topp ñoom Karim Wade moom moo dem ba si ministre Sidiki ba mu ne ko waxal président ne ko nañu jox xaalis ñu dem uti ji ay mystique par waa kër Karim Wade dañu bëri gàllaaj nee na Macky Sall yëkki xaalis bu weextal jox leen ko ne leen dem leen fu sëriñ ne dem leen procureur Alioune Badara mooy wax nee na même gars yi rey nañu ay nag tëngéej kon nga xam ne géeju tëngéej géej gu ñu yëpp la te loolu naxari waa tëngéej la yàgg nañ fa rey ay nag di fu fétiche di fu xërëm nag yi nga xam ne nag rey nañ ko ci pale bi ak mm. ak bëy yi ak kaani gi nga xam ne kaani goo xam ne kaani poudre la boo xam ne siw nañ ko ci pale bi. kaani xam nga lu ñu si jublu. Hmm. maanaam jaxase yàq diggante président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye kooku bi may nekk kasu rëbës. Hmm. ñu en deux mille treize deux mille quatorze boobu dañ doon def grève de la faim bu metti am benn pël boo xam ne ñoo bokkoon kaso bi mu ne ñu fexe leen ba indil leen ma kaani. mu ne ma soo leen ma indilee kaan yi ba la ma ciy def ma def ko ci kaso bi jàmm si lay noppee am prison rëbës billaahi wallaahi maa ngi ci koor gars yi dem cuisine fi ñuy toggale prisonnier indil ko kaani gis nga kaani ba mu ci defee lam ba ñu wis ko ci biir kaso bi si la mutinerie bi amee si la grève de la fin amee ba le ministre de la justice Sidiki Kaba mi ngi dund ñëw na ñetti yoon jour boobu prison rëbës ànd ak Cheikh Tidiane Diallo yàlla na ko yàlla yërëm ànd ak Lamine Coulibaly jamono jooju man maa doon porte parole prisonnier yi ak ku ñuy wax am Amdi Moustapha Bari mi ngi camp pénal yàlla na ko yàlla teggil nattu bi gis kaani boobu mystique bu garaaw lañ ciy def te fuñ ko wis maanaam jàmm pour mu am pour mu am ci bërëb boobu problème fitna rek moom mooy juddu parce que ñoom xam nañu ne politiquement Ousmane Sonko am na lu mu am ci réew mi am na lu mu tekki mi ngi ci xolu sénégalais yi jox nañu ko bopp ci wàllu politique. Hmm. jox nañu ko bopp te maanaam Ousmane Sonko li fiy yàggal mooy acte yi muy posé premier mandat bi bu ko réussir pour jëlee ko fi sax ça va être extrêmement difficile léegi nag ñoom bi ñu demee ba xam loolu ñoom dañ leen wax ne ñoom Ousmane Sonko gëmuñu ay sango ay galaaj ak yooyu te évidemment président Ousmane Sonko ñu bëri doon nañ ma woo sax si ay waa Pastef ak yooyu ñu nekk bitim réew. naan ma non gis nañ sëriñ bi si internet dañu bëggoon defal xam nga ñoom dañu gëm Ousmane Sonko lu leen nit wax rek dañ koy gëm. Hmm. patriote yi liñ leen nax ci affaire sëriñ ci mbirum Ousmane Sonko loolu alal ju bëree bëri am na ñoo xam dañ ci dóoru dóor ba reg par ñoom boo leen ni génneel saraxu nax ngir Ousmane Sonko dañ koy def boo ne leen génneel saraxu bëy dañ koy def mais ñoom mystique bi ñu doon bi ñu doon def c'était ci bon sens. ci côté bu baax lañ ko doon defee maanaam pour seen leader am jàmm pour seen leader génn ci kaso bi ndax gëm bu ñu ko gëm bu ko gëm ñoom bi ñu demee ba xam ne waa kër Ousmane Sonko ñoom dañ ko xoole comme genre ibaadu entre guillemets ak Bassirou may Faye ñu ne ñii gëmuñu sëriñ gëmuñu gàllaaj donc nañ leen nañ leen leen jugal te évidemment Ousmane Sonko gëmul yooyu Ousmane Sonko du takk gàllaaj yooyu gëmu ko moom dafa mës di wakkirlu si boromam même depuis la prison ay nit dañ doon bëgg dem di ko yóbbul ay galaaj pour mu sangu def nii mais moom gëmul lool te li may wax ni certes hmm. Ousmane Sonko dina seetaan vidéo bi du mës a li may wax te loolu awma ci benn dut gëmul lool moom mbiram yëpp si boo ko xoolee tàmbaleem ba fii mësul génne cadre yàlla dem na ba yegg si ne bis bu ma faloo sant leen bis bu ma faluwulee it ngeen xam ne yàlla suñu borom te loolu du constant la ci biir communication am. Mm. maanaam chaque jour da doon delloowaat cër bi suñu borom. gis nga féticheur boobu ñu indi. loolu luñ ko sox hôtel. ndax xam nañ ne enquête sax mën na jóg ñuy xool ba ban otel la nekkoon gis nga fan résidence. Mm. fa lañ ko loger kër. ut ay alkaati yoo xam ne ñoo ko doon garder féticheur boobu maamam bokkoon na ci ñi dàq fétiche ci ci Inde. bu may ñëwaatee dinaa joxe turam gën a joxe ay détails yoo xam ne nit ñi dinañ xam ne ñun at yi ñu am mënuñu koor di yàq suñu koor ci ndëgalaw di wax loo xam ne comme ni ko xale yi di bëgg bës lañ si bëgg wala nangam ñu soxleetuñu. ban moment la lool non soxleetuñ loolu. ban moment la ñëw ci réew mi ngi ñëw ci réew mi le 27 diggante le 27 ak le 28 bi si la si la nekk ci réew mi. maanaam nag liggéey waaw mars. maanaam liggéey bi nag avant président Bassirou Diomaye Faye di def passation de service moom jeexal na ko ci pale bi mu nekk nag liggéey bu bon a bon ci wàllu magie ak wàllu mystique liggéey boobu bokk na ci liggéey yi gën a bon yi nga xam ne maanaam bu la jàppee jàpp la mooy problème mais bu la xësee ba jàpp ah kooku bu say mbokk jugul sa bakken mën na fa des wala la nga yoroon mën nga ko ñàkk parce que ñoom nguur gi daf leen jaral lu nekk lu nekk nguur gi da leen ko jaral ñoom tey dangay xool même président Ousmane sonk bi ñu koy yóbbu tribunal euh, ñoom dañ leen waxoon ne indi leen karawam ak weewam mais mënuñu am weewam mais jotoon nañu am karawu Ousmane sonk sous mm. l'ombre de conduite réussiroon nañu am benn karaw ci karawu Ousmane sonk ci Moussa Sami mm. mais weewam la ñu amul woon loolu la leen féticheur boobu loolu la leen laajoon donc kon moom euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak président Macky Sall nguur googu àdduna ñëpp xam nañ ne ñoom mystique dañ koy yàgg gëm di ko jëfe di ko doxe Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu ko Sidi Lamine ñes moo ñu njëkk xippi suñuy bët ci doxalinu Macky la wax ñu loge maçonnique yi wax ñu wàllu mystique bi wax ñu yeneen mais boobu nit ñi dañ doon xaaj xeer euh, euh, Sidi Lamine Sidi lamin Cheikhou Charifu xale bi ñëwoon Sénégal ne wàllewu la nangam nangam mm. ñu yóbbu ko esat ndax askanu lu ma Sidi Lamine moo taxaw ne leen xale bi escroc la kii xamul alxuraan mais lan lañ wax Sidi Lamine dañ ne Sidi Lamine nitu fitna la Sidi Lamine baaxul dafa iñaan liñ ko boolewul ci prison bi ci programme bi mais Sidi Lamine ñan temps bi jox na ko dëgg man nag samay wax. Hmm. day day day guddee rek mais lu nit di teg bëtam la man li taxoon ma daw dem Mali maa ngi sant yàlla la ma waxoon Pa Ousmane. Hmm. seedeel yàlla jox na ma dëgg wala joxuma dëgg. ah dama ne woon Ousmane Sonko Macky Sall yónni na ay nit. pour ñu waxtaan. Hmm. mu dàq leen sa xaj. ñu ne loolu du dëgg. ah mbir yi fu mu mujj mujjewul ci waxtaan bu metti boo xam ni ki ka sàkku mooy kan. Hmm. mooy Macky ba ma fi toogee ne rey ñu ay nag yu ñuul kuk géeju tëngëj ab nit caméra ko wan ma ko. ba ma ko hmm. toogee wax fii am na ñu bëri ñu si sikk sax kàddu yooyu ku ko dëggal procureur Alioune Badara ndaw dëgël na ko. léegi ki ko doon alerté lan la ci jublu woon bi mu la koy wax. noo xaaral rek yemagul foofu sax. Hmm. maanaam lim ci jublu. mooy ki nga xam ne moo di son excellence Bassirou Diomaye Faye mu jug ak ay mbokkam. bañ a financé palais waa ji nee na ma. Hmm. bu mu financé bu àdduna neex ba mu guddee si pale ba. fanaana ko mu ne ma boo fa finaanee rek yàqu. fanaana ko fa waa ji nag moom ci nguuru Macky Sall la nekkoon. ah mais gëmul woon système bi xam nga liñ ne Macky Sall xam naa ñu bëri ñu àndoon ak moom te gëmuñu ko loolu ci li koy yokk raysel man xam naa ñu bëri ci nguuram xam nga man man xam naa nguuru Macky Sall eh. bu baax a baax a baax am na ñu bëri ñu ma xam ñu doon xoola ñu doon xalamal Macky Sall doon nekk moom suba ak ngoon. boo doon wër ay noonam dëgg jàppal ñooñu noonu junju doy na borom xel ci wàllu sécurité am tamit. Hmm. waa ji dem na ba yegg si ne ma. tableau yi nekk palais tableau yëpp nañ ko saytu ak fauteuil yi waa ji daf ma junj nee na ma tableau yi nekk palais ak fauteuil yooyu yëpp nañ ko junj ah ma ne ko lu tax mu ne ma gars yi bàyyi nañ nguur gi mais am nañu ay espion ci pale bi ba pare am nañu système yu efficace yu ñu fa bàyyi pour mën surveiller lépp loo xam ne mi ngi xew si mi ngi xew si palais hmm. te waa ji mu wax loolu nit ku fiable la ku fiable ku wóor koo xam ne sous du ko doute du mu am benn doute ci ay ci ay information am hmm. moo tax foofu noonu maa ngi suggérer son excellence Bassirou Diomaye Faye ne maanaam wàllu sécurité am hmm. na ko bàyyee xel bu baax a baax a baax même bu ci lënkaloo ak waa réewu Russie ñu jàppale ko ci Russie waaw Russie ñu jàppale ko Russie dafa xew ñu jàppale ko ci bu baax a baax ci wàllu sécurité wàllu kaaraangeem ah loolu de. Hmm. lu ma koy xelal la. lu mu bëgg mu dégg ko la lu mu dégg am na ñu ñu bëri ay ay ay kuréel yu mag yu nekk si àdduna ñoo xam ne dañ leen tàggat ci wàllu sécurité kaaraange ak yooyu da leen di fay xaalis ay privé lañ. pour ñu inspecter biir palais pour ñu inspecter biir nañ leen nañ fay ay koppar ñu ñëw inspecter indi ay détecteur xool micro yañ fa bàyyi enregistreur yañ fa bàyyi li ma la wax nii. Hmm. nañ ko enregistré bu baax ñu jent ko man samay wax day guddee rek mais lu nit di gis la nañ dem nag ba si kanam di nga fi dégg scandale yoo xam ne mosoo ko dégg Sénégal bi nga dee Pa Ousmane ba jon yàlla ba jon yàlla te donc kooku alerte la te wax ji jubluwu ñu ci leen. Hmm. mais ñun ay lanceur d'alerte lañ yoo xam ne bu ñu déggee dara nu nous sentons investis de devoir citoyen de veille et d'alerte pour message yi moom mu dégg ko. après ñun ñu delluwaat suñuy yëf. Mm. comme li Cheikh Bara Ndiaye wax rek ñun suñuy affaire la ñuy delluwaat. toog nag di surveiller bu baaxee ñu ne baax na mais bu bonee dinañ toog ne ah erreur am na tant que mi ngi baax man Bassirou Diomaye Faye mi ngi gouverneur dëkk bi. Mm. tant que mi ngi baax moom ak son premier ministre dañ leen di féliciter. dañu leen di enga encadré parce que projet bi suñu projet la ñun dañ ci def sacrifice dañ si sonn ay sénégalais dee ci. mais bis bu ñu jàddee yoon rek jot suñu jikko ah. dinañ ne leen ah arrêté leen ñoo leen gunge woon ñoo leen jàppale woon mais nag li ñu gis ni demul kër bis bu jàdd yoon amee a ah, dinañ ne leen da ngeen jàdd yoon c'est-à-dire ñun askan bi la ñu fi nekk lu ñu dégg nag fork ci weewu bay xam nga hmm. mënuma tëb dem gis Bassirou Diomaye Faye mënuma tëb dem gis euh, président Ousmane sonk mais bu ñu amee ay ay ay message yu ñuy véhiculer via plateforme yi ñu disposer pour communiquer. Mm. fa lañ koy jàllale pour sensibiliser pour informer pour arrêter ba message bi yegg. ci jox ko ko crédit boobu crédit bu doy sëkk ba tax. li déggoo li ma la kooku sax d'ailleurs sax woowu ma sax téléphone. nit la yónni ba sama kër nit la yónni. waaw ah. chauffeur am la yónni ba sama kër mu nekk neel monsieur Sall dama ko soxla man ñi may jox information ñu ëpp du ñu ma woo dañuy yónni nit ci ay canal ma daje ak ñoom ci ay bërëb ñu jox ma ay xibaar parce que man dama am loyauté ci doomu aadama. man ku ma àndal Pa Ousmane bu ma la téyee téye naa la su ma la bàyyee bàyyi naa la man noonu lay fonctionner sama àdduna. Hmm. man bu ma la téyee téye naa la bu ma la bàyyee bàyyi bàyyi naa la mais lu ñu toog waxtaanee ko ci biir nekk man ak yow bu ñu ma doon rey sax du ma ko wax man li tax ma exilé Mali est que xam nga ban raison moo tax ma exilé Mali. wax nga ko fi. déedéet. ah raison bi yokk tax ma exilé Mali. maanaam dama xam ne man nguuru Macky Sall ñu jàpp ma yóbbu ma kaso man de reyu ma nit defuma dara lool dina naxari prisonniers yi lool maanaam dina leen metti man dayo bi ma am ci ñoom ak ndimbal li ma leen di ñu jàpp ma man tëj ma